plateau matinal Allô Sénégal 9h passé de 42 minutes la destination c'est à 10h ñu ànd ak Petaaw xew-xew fait divers Petaaw euh, xew-xew bi tey fan la. voilà Aïcha tey na xew-xew bi suñu benn yaay la bu nekkoon bitim réew nekkoon États-Unis mhm. nee na def na fa 24 ans lépp lu mu liggéey nag or la ko daan jëndee maanaam li mu jënd si njëgum or toll na si ñaari kilo ak lu teg presque cent et quelques millions. bu mu liggéey rek xam nga mag ñi dañ daan wax ne or denc la. ndax boo jëndee tey denc ko ëllëg si biir mën na la jural leneen. Mhm. ndax tey fu gramme bi toll ak gramme bi ñu ko doon jaay daaw xam nga am na différence. léegi nag moom mu nekk bitim réew di liggéey di jënd or di yónnee yaayam mu koy téyel waaye daal ba mu koy yónnee yaayam koy téyel am na taawam bu mel ni ndey pettaaw lu yaay ji yónnee sa euh, bitim réew rek yónni yaayam moom mu sàcc ko si maam ji dem jaay. léegi nag nekk ak moom ak noonu ba yaay ji ñibbi si problème yi foofu la démarré nañ dem déglu ci suñu yaay jooju nga xamante ni moom moo ñàkkoon xaalisam jëne koy or waaye moom itam mu sukkoon jur doomam jooju nga xamante ne mooy taawam ak ni muy dundeek moom ñu dem déglu ji ko te ñëwaat. sama taaw bu jigéen moo sàcc sama ay or damaa tukki woon def naa Amérique vingt quatre ans di daan sama doole yor leen kenn fekkuma ci ñoom ba ñuy gone ba léegi sama njaboot gépp moom fayal naa ko jàng fu naa ko Saint-Michel. fayal naa ko Maroc fayal naa ko BM ba mu am ñaari master degree sama alal ji nga xam ne nag moom laa jëloon dénk ko sama yaay muy valeur or boo xam ne egg na ci ñaari kilo ak genn wàll biñ ko xaymaa egg na ci cent trente cinq millions CFA. bi ma ñëwee ma dem këram ndax këram googu kat man maa ko fayal caution ñetti weer di fay par weer. tapi ba tapi ba ci biir kër ga sax maa ko jënd tele ba lu fa am maa ko jënd pour ma am fu may dal bis bu ma jógee Amérique ñëw Sénégal man ak sama doom ak sama doom jabaram mu dem wutal la ko ci pokos bu tuuti dëkk fa lekk sama xaalis teg ba noppi mu jiiñ ma ne damaa ubbi këram dajji ko te man li ma jaaxal yow noo mën a dajjee kër goo xam ne dangaa romb gardien premier étage deuxième troisième ba quatrième xam nga ne loolu nekkul lu jaadu mu wëlbati ko waat porté ma plainte daal di may sosal te kër ga kat moo ko dajjil boppam mu boole ci ay nit topp ma di ma menacé mu ànd ak koo xam ne maak ma ma bokk ndey ak baay ñu may xeex teg même rakk joojee ma bokkal ndey ak baay sama teraanga dem na ci moom te teraanga moom mu mus ñëw ci man. léegi nag maa ngi ciy woo àdduna ñu mi ngi may boole nag ak ay woyu ñu ngi may woo ñi naan policier lañu ñi naan du ñu policier ñoom li ñu bëgg mooy faagaagal ma ndax nee na man xaw ma dara ci dëkk bi te nee kat moom am na bras boo xam ne moom ay kilifa ñoo koy jàppale pour bëgg maa faagaagal léegi nag maa ngi ciy woo son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay maa ngi lay woo kat ci problème bi ndax yow kat ni ma la gisee sopp naa ndax nitu dëgg nga te ku la gis xam ne fonk nga sa ndey kii nag man maa ko jur ci sama biir kenn juralu ma ko voilà Aïcha nee na moom moo ko jur ci biiram kenn juralu ko ndax bu doon yarluwaan sax ñu ne li ma ko jurul moo tax waaye doom ji nga sukk jur muy doom ji nga njëkk a gis sa àdduna nga xam ne moom mooy doom yi dàq ci doom yi mën nañ ko wax ndax mooy li nga njëkk am ci cadeau bi ci moom la nekk ak nag di liggéey di ko yónnee ba utal ko appartement bu mu mën a nekk bu yaatu boo xam ne moom mère bi bu jógee États-Unis ñëw aussi ak doomam bu góor ak jabaram ñu am fu ñu nekk waaye daal ndaw si nekk ci réew mi rek moom li ko neex lay def di ba pare nag or yi yaay ji doon dénk maam yépp moom mu di ko jëlaat di jaay mu nekk loo xamante ne lu doy waar loolu bi yaay ji ñibbisee nag ba ñu def état des lieux gis ne lu bëri manqué na ci ñu mujj ñoom ñaar di jàppante dégg ngeen ni mu ko expliqué ba ndaw si moom waroon porte plainte doom ji doom ji mu ko porte ko plainte ne dafa daaj te kër gi muy wax yaay ji moo ko nekk loo xamante ne lu métti loolu la yu bëri nag di ko dund parce que da ngay nekk bitim réew ay saa di liggéey ki nga wóolu rek ngay dénk sa xaalis bu fekkante ne yow yaay ji nga wóolu nga dénk sa xaalis di ko jox sa doom ji nga sukk jur delluwaat gannaaw di jël sax or boobu dem di koy jaay ji di si faj ay soxlaam day nekk loo xamante nit ñu bëri dañuy immigré ba sonn ba ñibbisiwaat duñu yor dara ñuy ñuy jëlee si dépression ñuy jëlee si ay feebar yoo xamante ne doo comprendre ndax seen yaakaar moom mooy tas ay chat mm-hmm. mu nekk lu métti te mère baa ngi koy dund doy na waar ah, Racky ah si malheureusement déjà doom ji moo amoon mois je vois des cas ci côté terrain yi tu vois mhm. ñoom dañuy tukki nekk extérieur di yónnee fii pour ñu tabaxal leen et tout tu vois que ñi ñuy wóolu pour jox leen loolu dañ leen di truandé wala boog ñu luubal euh, alal boobu la donc c'est vraiment malheureux nit nekk bitim réew di daan dooleem pour aider ou bien pour construire quelque chose après yow euh, tu t'en fous parce que noonu laa ko mën a jàppee donc euh, doy na waar daal bon eh? il faut dire qu'Aïcha aussi lii def ñuy jàngalaat ne les dañ fi nekk pour lan denc. chaque année wala boog chaque jour je dirais ñu dégg cas bu mel ni parce que abus de confiance moom je pense que c' est mm-hmm. devenu une habitude assez sénégalaise donc euh, nit ki boo nekkee biti réew di liggéey xamoo lan moo fi nekk. donc euh, bul woolu kenn li ma koy waxee donc bul woolu sa boolu sa bopp donc banque yi ñu ngi fi pour lan la pour dañ sa xaalis la boo ñëwee nga jël mm-hmm. mais am naa sama xaalis maay jox kële xamoo kooku noonu ci ban situation la nekk ban dogal la ko ciy waaye wala nag leen te xaalis day doon loo xam ne nii seytaane la rawatina ay bijoux donc tey ni ñuy dencee xaalis tey ci biir banque noonu la ñu mën a dencee ay bijoux feneen ak feneen mm-hmm. donc euh, gën a yeetewaat rek loolu loolu moom moo ci nekk parce que xel tamit du jëriñ nit lu loolu lu dul xalaat donc euh, tey li lii bu la dalee li ñu ciy jàngat moom mooy mu amatee sama xaalis ma yóbbu banque quoi métti na nag li ko dal ma saw ko rek lañ trop dans l'informel quoi. et puis et li li gën a graaw mooy du ki mu ko jox mooy problème. parce que yaayam la wóolu. ba jox ko ko diggante nit ak yaayam. Mhm. yaayam la wóolu ba dénk ko. mais kii def jëf ji doomam la. c'est-à-dire c'est un peu compliqué. ki la gën a jege nga wóolu waaye ki la gën a jege aussi moom. am na tey boo deewoon moo lay doon. Hmm? bon euh, pour man bon am na ay agence yoo xamante ne agence immobilière yoo xam na dañuy nekk dañuy defar ay kër. Mhm. après su paree ñu.

Euh, que nga def ko et après boo beneen yoon bon la vie dina la woon ni du loolu après beneen yoon nga def nga nga def xam ne dafay revenir comme lu ma doon wax que ñoo xamante ne bu fekkee wóoluwoo ay nit euh, wala yaa am ay doute wala amoo ko denc sa xaalis c'est ba souvent c'est difficile xam ne ñoo nekk à l'étranger du ñu parce que à l'étranger boo fa nekkee surtout nga nekk étranger du ubbi compte bancaire. Mm-hmm. bokkul ak maanaam nga nekk nationaux. nga dëkk nga dëkk si dëkk ubbi compte bancaire on dañ lay yoo xam ne peut-être sax doo ko mën a fournir. Mm-hmm. donc loolu ça pose problème loolu moo tax ñuy envoyer xaalis direct ah, yooyu noonu le plus bu ñu defaral la benn affaire bu fekkee amoo koo jox ba mën nga dem si agence immobilière am na certaines agences immobilières yoo la ñuy liggéeyee ñoom dañuy dañu la defal lépp tabaxal la sa këram egg et puis tout est Euh, voilà duñ la nax duñ la def dara. <laughs> Eh, non no je non je veux dire que moo maa ko kii si. ok ci côté boobu projet mon projet femme loolu la woon. ok bu ñëwee tabax kër. ok dina mën na ko fa jëlee or. bu ñëwee dénk ko yaayam léegi day toute façon. de toute su fekkee même su fekkee maa ngi woo affaire kër même su fekkee sax beneen kii la beneen par exemple post mm-hmm. mën nga fa yóbbu am na ay casiers yoo xamante ne sont des banques casier boo xam ne dañu koy rattaché sa compte bancaire je sais pas ma xam si tu as vu les les oui, voilà donc soo demee am na say biens yoo xamante ay biens yu précieux lu mel ne ay bijoux wala leneen ak leneen yoo xamante ne mën nga ko fa denc voilà si si ah. boo demee mën nga ko fa yóbbu après heure boo soxlaa mën nga ko mën nga ko andi Petaw merci beaucoup. mu ngi lay jaajëfal nga denc ko. Aïcha mu ngi noonu di ko massaw bu baax a baax. di wax ne rek yàlla boo amee Alzheimer rek mag ñi <laughs> mag ñi noonu lañ daan dencee dañuy gasu. yàlla boo amee Alzheimer rek ñu koy massaw bu baax a baax suñu jooju ndax boo nekkee bitim réew di liggéey di euh, euh, veillé ci say doom di investir ci sa njàngum doom am nga leneen looy yaakaar ci ñoom loolu nga dem ba ñu màgg mu lay taxawoo taxaw boo xamante ne bu doy waar la ñu ngi koy massaw bu baax a baax benn bi Aïcha ku ko jox ku jigéen yaayam waaw ah yaayam waaw ok ma foogoon doomam bu jigéen sax la. man ma nekk bitim réew. Ah. di liggéey di dénk sama yaay. sama doom non mais mais. maa ngi ñëw ma expliqué lépp xanaa comprendre naa kay. na dama foogoon ne xam nga laa foogoon fan laa defee amalgame pour man euh, comment dire yaay ji moom moo yónnee. doom ju jigéen. mais loolu bu fekkoon loolu c'est quand même tamit. mais ki nekk bitim réew di liggéey yaayam la yónnee bor bi. alors doomam bi mu jur moom moo koy jëlaat si sa e, maam di ko sàcc comprendre nga voilà beneen bi beneen bi moom euh, kii la waaw avis de recherche la suñu benn yaay bu ñuy wax euh, Fatou Diop dëkk fële sa zone de captage mm. secrétaire de direction la nag moom dafa xëy rek génn dem boobu ba léegi ay mbokkam ñu ngi koy wër xamuñu si moom si lu mu nekk lu mat fukki fan euh, ñoom ñëpp ñu nga jaaxle looloolu famille Ndiobène di ko wër bu baax a baax kon ñu ngi sàkku ndimbale képp koo xamante ne gis nga suñu yaay ji mu woote si numéro yooyu ah mu nekk loo xamante ne lu doy waar loolu Aïcha mm. moom itam ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla nit si barke sangu-sang yi mu nga dëkk fële si zone de captage bi mu demee léegi nag def na fukki fan ak lu teg kenn xamul fu mu nekk boobu ba léegi ñu ngi koy wër amul feebaru xel nag amul dara mais daal génn na daal dem euh, xam naa ne soriwul ay cinquante ans de waaw moo nekk nii mooy maire bi toog nii si lalam. yàlla na feeñ ak jàmm. amiin yaa rabbi mu nekk si jàmm itam. amiin fekk njaboot yëpp nekk ci jàmm. amiin baax a baax di jaajëfal am moom itam euh, moo moo yónnee pour ñu jàllale ko nga xamante ne tantaam ji nga xam ne moom moo ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla nit bu baax a baax di jaajëfal di wax ñëpp jumaa mu baax ak rendez-vous Aïcha mardi si kattan suñu borom baaxam jërë ngeen jëf. incha allah a téléspectateurs di remercier aussi Constance si maquillage bi di ko wax ne bëgg naa incha allah. la main de Constance. waaw oui Constance lay yàq temps yi. Grégoire merci beaucoup. au plaisir Aïcha di joxe rek rendez-vous très prochainement. incha allah nee na très prochainement xam nga moom day ràññ si plateau bi day yéeg laa la wax Pape merci. waaw merci plaisir la semaine merci ñëpp ñu nga xamante ne ñoo ñoo liggéey ak ñoom si semaine bi yëpp. ñu sant ñëpp di leen gërëm ñi nga xamante ne nekk si hôpitaux yi boo yàlla yëkkati leen. prison yi aussi ñi fa nekk ci defuñu dara. di maa ngi Euh, que ñu innocente leen et puis bon ñu génn dem seen biir kër sant bon week-end à tout le monde. bon week merci à toute l'équipe matinale merci à l'équipe technique Ousseynou Ouez merci beaucoup pour cette très belle complicité papa Mouhamed ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal Babacar mi ci suuf merci beaucoup Khady itam. Euh, suñu monteuse bi nga xamante ni elle est exceptionnelle ñu ngi koy remercier bu baax a baax jox leen dig daje ba altine incha allah 10h di ngeen am seen flash d'information 11h vous aurez Sista Maria et sa team dans la mi-journée quant à l'équipe matinale ba altine incha allah merci beaucoup.